may doom damay doom ñaari doom yi nga xam ne liggéey nañu. procédure la ma song dóor ay coup de sommation. mooy kii a rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit kon nga koo rey. ndax bii nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la. danaa ko yemale ci juróomi at. ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu dellu si ak yéen ni ñu koy defee àllarba bu nakk euh, ci seen spécial débat faram fàcce tey nag am nañu mbégte ni ñu koy amee saa ne euh, bu yaatu ci ay gan yoo xam ni war nañu waxtaanee ak ñoom euh, xew xewu réew mi ci wàllu politik tey nag ñu ànd ci ak Yoro Ba moom moo jiitee jëf jël monsieur Ba Yoro ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. Mhm. voilà ànd nañ ci itam ak honorable député Thierno Bocoum moom mi ngi bokk ci parti réew mi honorable député maa ngi lay nuyu. Pape Ngagne maa ngi lay nuyu di nuyu ñoo bokkal plateau bi yëpp. voilà ah, ñu ak euh, le ministre aussi euh, Youssou Touré bokk ci APR euh, monsieur Touré nuyu nañu la. maa ngi leen di nuyu voilà Serigne Mbacke Ndiaye itam mu ngi bokk ci commité directeur bu parti démocratique Sénégal monsieur Ndiaye nuyu nañ la. maa lay nuyu di nuyu mbokk yi fi toog di nuyu sénégalais yëpp di la gërëm ci invitation bi. voilà jërëjëf donc mbokk yi dañu daal di tàmbali waxtaan bi waxtaan bi nag euh, tey dafa am benn image rek bu ma bëgg xool ko après ñu commenter ko ensemble ma demander la régie ak Mao bu fekkee disponible na. c'est-à-dire Macky Sall. bu fekkee ni vraiment vraiment laa la wax. li Macky Sall du sa morom Abdoulaye Wade la duggoon. Ablaye Wade bi ngeen gëm la Macky Sall du seen morom yi. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. auditeurs yi d'accord voilà mbokk yi mu nekk image boo xam ne ñoo ngi ko jëlee ci suñu naataangoo yu seen TV ci seen émission bu bu nga xam ne ñu ngi koy def muy confrontation euh, ñu ngi leen di euh, ñu ngi ñu ngi jëlee image bi foofu euh, ci la bëgg a commencer li nga xam ne nag moom mooy débat bi ñu fas yéene indi tey monsieur Ba Yoro image yi lan la la inspiré bi nga ko gisee. maa ngi lay du nuyu sama mbokk yu baax yi ma bokkal tey émission bi di nuyu waa Sénégal di wax ne image bi man maa koy doog a seetaan yëgoon naa ko nag mais bëgguma ko woon sax xool wax dëgg yàlla parce que lu mel ni dafay tuutal di gàccal waay politique xam nga politik Sénégal lu tax mu metti dafa métti parce que yow dangay ngay doon as gor am tax nga mu ngay dugg ci géewu politique bi pour li la yàlla wërsëgal néew na béy na ci xam-xam ci nju expérience nga jot ne da koy jox réew mi ca anam ya nga féete politique yi seen defin ak seen dafa dem ba nga xam ne perception bi population yi am ci homme politique yi nekk perception bu doy euh, yenn saa yi sa doom yi sax dañ lay wax ne waa papa yi politique sa xarit yi di ko laaj wallahi al waaye nag euh, euh, journalistes yi aussi am nañ ci part de responsabilité loolooy dëgg man dama jàpp ne am na yoo xam ne nii jarta fësal jarta wane jarta commenté euh, dem naa ci benn émission dimanche ñu laaj ma dañ ma laajee dama ne lii duma ko commenté c'est par respect un peu ak li ma koy doo gis ni ak choqué na bi ma def moo tax ma wax ci lii ma ci wax mais daal damay ñaan sunu mbokk yi nekk ci géewu politique bi nañu rafetal nañu rafetal bu fekkee da ngay pour ñu la réew mi am na noo war a doxalee noo xam ne nii ku la ci gis ndaw la ci man daal la ci bëggoon voilà la monsieur Ba monsieur Bokoum Thierno honorable député image yi waaw Pape peut-être euh, euh, image yi du si sori trop si commentaire parce que je préfère que ñu mettre l'accent sur la règle au ñu mettre l'accent sur l'exception lu mel nii yaakaar naa ne ne lu muy am Euh, homme politique yi bëri nañ fi euh, chaque fois ñu ngi def ay débat yoo xamante ne ne ay idée moo fay génne te tey Sénégal toll na foo xamante ne ne lu ñu war a soxal dëgg mooy lan la ñuy def bu jugee ci situation bii ñu nekk donc yu mel nii su amee euh, lu ñuy naqaru la waaye lu ñu war a dépasser la parce que mënuñu concentrer suñuy effort ak suñuy énergie si loo xamante ne ne yaakaaroon nañ ne dépassé nañ ko parce que tey Euh, Sénégal mu doon opposition mu doon pouvoir lan la ñu def ba euh, xel yi ak xalaat yi dem si luy jëmale Sénégal kanam loolu moo gën a am solo que ñu war a wàcc si débat yoo xamante ne ay wax yu ñaaw la parce que nee wax ju ñaaw euh, dëkkul fu mu jëm fu mu jugee la cosaanoo donc fu mu ko regle foofu loolu rek laa fi bëggoon wax. monsieur Touré Youssou. <coughs> waaw maa ngi leen di nuyu si dalal bu njëkk bu ngeen may dalal fii si TFM di leen gërëm aussi ci invitation bi. pourtant. naa la ah sama xarit woon wala sama xarit ba tey ministre Serigne Mbacké Ndiaye di nuyu. Euh, ngeen euh, wone ni dëgg la rafetut. Euh, si géewu politique la yàgg naa am. avant indépendance ba si indépendance ay nit rek des fois dana am suñ benn côté bu jóg donc di ko jéggalu askan bi parce que yaakaar naa ne euh, lu saafara jafe-jafe yi moo ñu tax a jóg du saagante ak dóorantey kurpeñ parce que képp ku jóg saaga wala dóor kurpeñ rek c'est parce que dese nga lu bëri c'est parce que doo c'est parce que nit ku ñàkk fayda nga mhm. parce que du doole la ñuy fajee jàngoro jàngoro xel boo koy faj mhm. donc dañ koy ñaawlu euh, di yaakaar ne aussi peut-être que ñoom ñun dal xëy na aussi erreur la mhm. ñu jàppee ko noonu rek yëf nit la des fois euh, des fois nit ki juum violence politique nag yàgg na fi lii daf yàgg depuis 1960 avant indépendance ba si indépendance ba léegi. donc yàgg na fi moo tax ñu war ko weesu. demoon nañ sax xëy na ba weesu ko. mais après dafa ñëwaat avant mille si ay assassinat si ay dóori martoog. ay yu kenn xamut. looloo tax nag bu amee aussi dañ ko war a saafara nuñ koy saafara mooy yoon doxal liggéeyam parce que waratuñu eggooñu sauvagerie période sauvagerie antiquité. donc yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay képp ku tooñ ñu teg la si yoon ak koo munti doon ak foo munti jóge ñu teg la si yoon dinañ ci ñëwaat ci wàll boobu mais ñu ma fàttali tuuti rek ni boo waxee que télévision bi recevoir ñu la te ma gis la ci ay émission yoo def ak ay Aïssatou Diop Fall dafa may jaaxal kooku mooy benn beneen bi itam man émission bi invité nañ la ci te ñëwloo ba émission bi jeex dégguñu la kon bu fekkente ni wax nga télévision bi ñu ngi lay doogal du du polémique du dara mais c'est juste pour ñu leeral ko rek ah. voilà merci beaucoup monsieur Ndiaye par rapport ak image yi. waaw jërëjëf euh, euh, xalaatuma woon sax ni image bi danañu ko jàllale tey. Mm-hmm. waaye dama am mbégte ci ñu jàllale ko. li tax dama xëy tey ci suba euh, di déglu vos confrères de de de de FM. ma dégg Ahmed Aïdara di ko commenté ma woo suñu frère bi nga xam ni moom la lii dal ma ne ko ndax yaa ngi suivre mun ma maa ngi suivre bi mu jeexee mu rappelé ma moom ni ma dama am benn xalaat bëggoon la ci consulter bala ma koy def ma ne ko lan la mu ni ma dama bëgg a jéggulu sénégalais yi ci lii ma dal mhm. kon tey mën naa wax ci turu kooku ni ci mooy kan mooy galotaal ma ne donc ci loolu mën naa wax ci turam ni mu ngi jéggulu Sénégalais yi parce que ku ko xam-xam nga ni du loolu bariwul lu mu koy dal mais nañu seet la ko indi ñu saafara ko ci suuf li ko indi mooy responsabilité total entière bi nga xam ne ñoo yore réew mi tey la ma yoo nga xam ni suma frère suma xarit parce que bu ne xarit woon man aw ma xarit woon Youssou Touré xay na li tax mu ne xarit woon dafa falu ma di ko woo téléphone mënatuma ko jot peut-être looloo tax ginnaaw ba ma ko jotee félicité ko saa ma woo mun ma je rappelle daal di coupé dootu ma ko jot xëy na looloo tax mais man jàpp naa ni sama xarit la euh, te it naw naa ko ndax gis naa engagement bi mu am au service des sénégalais et de tout le temps mm-hmm. dégg naa ko moom mu jéggulu sénégalais yi parce que kii nga xam ne moom la lii dal tey lii du tey la ko jëkk a wax du benn yoon du ñaari yoon te ñu gis ni lu xaw a demee noonu moom la suñu wax mu ngi ci kaso bi ba tey génnul kii taxaw ci rajo bi ni diw ak diw nangam nañu rus nañu jaaraat ci lu mel noonu ba fii toog di wax dara fekk ko ci donc mu yaakaar ne lu mu war a continuer di ko def la. toog na débat ñëpp di ko seetaan ci wal faj li mu wax lu gën a garaaw li mu wax nii bu ma fàttali ko moom ak suñu frère Momadou Lamine Massaly la woon. effectivement mu wax fa lu wax ju wax ju day waar. ci émission te nag bu dara dul dara. Mhm. en tout cas ñun sénégalais. culture suñu cosaan ak suñu aada. mooy ku ñu mag dañ koy jox cër ku ñu maaseel dañ lay jox cër mag dañu koy wormaal en tout cas man ñemewuma nii nga toog nii kilifa toog ma toog ak moom ci kaw musuma ko def parce que loolu la yare donc bu fekkee ni ku mu taseel saaga la ku mu taseel tam la ku mu taseel wax la wax judul noonu te dara fekk ko ci mais mu yaakaar ni loolu war a continuer ba tey nag tase naa ko nga xam ne xëy na li keneen mën a muñ mënu ko muñ li am am donc dama bëgg bu dëgg la nañ ko ñaawlu nañ ko condamné mais ki tooñ nañ ko xamal ni yaa tooñ bu ëllëgee dootoo ko def je pense que loolu bu ñu ko defee véritablement am na yoo nga xam ne am na dootul am mais encore une fois vraiment ñi ngi jéggalu sénégalais parce que yaakaaruñu ni lii lu war a mën a am la rafetul ci deru sénégalais mhm. rafetul ci classe politique bi parce que li may wax toujours di ko répété yëngu bu fi am rek gisuma ko ci gën a yëngu-yëngu gën a sell politique parce que man jàpp naa ne politique jàmm yàlla voilà merci monsieur Ndiaye dinaa ci def euh, benn question parce que yéen kenn ku ci ne amoon nga ci commentaire boo ci def mais man am na ay question yoo xam ni par rapport ak kenn ku nekk ci yéen Yoro da nga wax ni presse bi am na ci responsabilité bëgg naa nga wax ma responsabilité bi waaye itam jëf jël ku ko mës wax image boobu nga ko mës a jox parce que bi nga xamee ni Talla Sylla la euh, yéen a ngi ànd xëy na tey la tàggoo am ci seen diggante mais image yu euh, nga baal ma ci baat bi yaree di ku wax lu ko neex def lu ko neex muy ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon image boobu lañ leen mës a euh, te loolu itam. lii ca tey même bu fekkente ni ci ay wax la loolu lañ daan dégg ci yeneen façon ci yéen nga wax ma aussi responsabilité bi ni ma la ko ni nga ko waxee sànq ci presse bi. waaw balaa may wax ci responsabilité presse bi damay fàttali ne Sénégal am na fi lu mën a ooyee problème dañoo nekk ci réew moo xam ne sooy wax dëgg ñun dina ngaa yaradi ko. Euh, tàggaliku bi ngay wax ci taala sax wax dëgg yàlla euh, su ko sénégalais yi déggee ni nga ko waxee nii day mel ni xuloo la wala dara ma bugg a préciser à ce niveau là que taala dafa nekkoon président jëf jël démissionné de la présidence du jëf jël créé mouvement wàlloom mu nekk président jëf jël bu fekkee loolu la ñu ooyee taqalikoo loolu moom mun nañ ko ko mun nañ koo wax ne effectivement taqalikoo am na foofu mais gannaaw loolu bi mu jógee États-Unis ñëw man la njëkk a oo bërki démb rek mu may oo di ma yëgal doomam bu am doom donc loolu il faut ñu leeral ko ci boppu Sénégalais yi euh, violence nag jëf jël daf ko mos di subir loolooy dëgg. Euh, defe naa physique ou verbal. subir nañ violence physique subir nañ violence. mais violence verbale bi lañ leen moomale woon. mooy li ma la wax rek xam euh, perception mooy déterminer caractérisation bu fekkee da ngaa wax wax dëgg jaar ca digg bi Sénégal mu voir comme yaradi ko du ma la dëbb même yow Papa Ngagne temps yi ngay def penco nit ñi dañ doon wax ni kii journaliste bi dafa xaw a yaradi ko man jàpp ma ko woon dama la xool sama dëgg yow mos la ma invité penco dama mës sa jàpp ne noonu nga koy defee impertinence boobu dafa baax ci liggéey bi mais man ni ma ko jàppee woon noonu ñeneen jàppee wuñ ko woon noonu de telle sorte que perception mooy tax yenn saa yi nit ñi di la caractère fekk meloo noonu kon nag violence moom bëgguma dugg ci détail parce que ñëpp xam nañ l'histoire politique récente du Sénégal ñëpp xam nañ ne jëf jël ca dëgg dëgg dëgg dañoo subir violence mais c'était pas un parti buy émettre violence. maintenant nag wax ji dina doon dëgër yenn saa yi et cetera te loolu du ñëpp ko doon def dafa am ñenn ñi nii lañ daan waxee ñeneen di waxee nii donc sur ce sur ce loolu caractérisation boobu moom. ça dépend rek ci nit ki. li ci des nag li ma wax ci journaliste yi responsabilité bi ñu ci am euh, lii exemple kese la ci euh, parce que su fekkee waxante dëgg kese bu ñu fàtte ne journaliste moom mooy formater opinion. Hmm. c'est-à-dire nit ñi suñu yeewoo. nga xam ne am na nit mënul fekkee lu nekk yéen yàlla dafa def yéenay fekkee lu nekk nit su eewoo déglu rajo seetaan télévision déglu revue de presse lire ay journaux en général ci loolu lay jóge pour formater opinion loolu d'accord naa ci mais monsieur Ba tey boo toogoon su le ministre wax nga jóg dóor ko lan moo ci responsabilité journaliste bi non man fi may waxee du dóor bi de fi may waxee mooy niñ koy montre en épingle di ko wane man pour man am na yoo xam ne journaliste dafa war a juger ni lii pour ñu koy wane man foofu lay waxee c'est-à-dire jàpp ne man am na loo xam ne journaliste waru ko waru ko sax wax wala mu koy wane parce que day jox événement bi importance xam ne nii amu joxe aussi image yu politique bi politique kat bi waaw mais euh, euh, joxe seen image aussi léegi léegi ci intervention yi am na ñuy jot wax ne politique lu noble la te soo ma dégloo sama wax xam nga loolu laa njëkk a wax dama la wax ne politique euh, soo koy def Sénégal. Mhm. nit ñi soo jógee ne yaa ngi politique rek dañ lay jàppee ku dul wax dëgg. Mhm. kuy kuy kuy naxaate mhm. et cetera et nga xam nga loolu day li yenn bind yi ak yooyu daf koy renforcer te nag journaliste dafa am rôle aussi parce que nag les politiques. ñoo naqari. ñu réew réew mi ñooy defar réew mi lu ci defaru ñoo ko defar lu ci yàqu ñoo ko yàq kon nag fexe ba population bi di bañ a percevoir kese l'homme politique comme koo xam ne nii lu ñaaw la dëkk lu bon la dëkk di mm-hmm. pour perception bi am ci politique yi gën a defe naa loolu am na solo te c'est la responsabilité du journaliste d'accord euh, monsieur Bocoum Thierno ci sa introduction da nga wax nii image yi daal gënul woon ñu commentaire ci wala ñu sori ci je pense que loolu nga wax n'est-ce pas alors que bu ma déggee gis naa ci internet bi ci sa Facebook nga def ci benn benn genre débat woo nga ki animé émission bi woo nga aussi sa membre bi la fa teewal pare ngeen pour def ci point de presse yéen waa réew mi n'est-ce pas loolu nga wax. Mm-hmm. image yi ak ay problèmes ni concerne leen fa donc boo demee ba mu jaral la yow loolu ak sa parti. Mm-hmm. jàppaloo ni lu ñu war a mun waxtaanee la yow. waaw xam nga dañu dañ ma woo débat. Euh, wax ma ay sujet yoo xam ne jàpp naa am na solo trop mhm. su ma comparé sujet yooyu ak sujet bi facilement mun naa wax ne ne war nañ mën a romb lii dem si yooyu mhm. waaye aussi képp kuy animé émission mun na choisir sujet yu muy yu muy teg donc su dee débat bu ñuy teg la mën nañ si sori euh, li ma bëgg wax foofu rek mu mu mu leer très très facilement mooy que ne tey am na attitude yoo xam ne mënuñu ko accepter ci réew mi je pense que monsieur le ministre wax na ko léegi Bara Gaye dañ ko tëj ci kaso ñi ko tëj ci kaso ñoo hébergé ci seen parti ñuy wax wax yoo xamante ne ne jégg na ëpp naa dégg loo xamante ne dépassé woon nañ ko wax yu ñaaw wax yu tegginuwul te mu doon loo xamante ne ni dama yaakaar ni tey fii ñu toll situation bii ñu toll soo yoree réew li mooy nan lay def pour promesse yi ma defaloon sénégalais yi ma satisfaire nan lay def yi ñu nekk te mu leer si ñëpp ñu daal di koy saafara moo tax d'ailleurs euh, jafe-jafe yooyu dafay am solo ñu siy wax di si discuter donc looloo tax pour man. Euh, am na deux poids deux mesures. Mhm. am na jaay doole parce que su man man maa am monopole pour wax lu ma neex nit ñi. Mhm. waaye ñeneen ñi ku si wax loo xamante ne ne toll na lu ndaw si loo xam ne man jàpp offense la dama lay dugal mais yow doo téye ñuy wax lu gën a garaaw loolu loolu dañ yaakaaroon ne dépassé nañ ko mhm. dépassé nañ ko moo tax euh, mbir la boo xamante ne dañ koy naqarlu mais dama bëgg leeral foofu rek. parce que hmm. du ma si sori trop. président de la république dafa doon loo xamante ne ne du ñu jël du ñu seet tur bi du ñu seet parti bi mu bokk du ñu suñu seet histoire hmm. lu ñuy seet mooy lu ko population yi jël fal ko loolu lañ koy ombale. Hmm. président de la république nag su demee ba tollu niveau boobu dafa war a éviter ñuy ànd ak moom. di ko jàppale fi liggéey bi di def defin boo xamante ne ne dafay ñaawal dafay gàkkal image am mm-hmm. donc dañ jàpp na ne wax naa ko sànq junj naa ko ne la wax ju ñaaw fu mu jógee la cosaanoo d'accord donc nañ ko régler fu mu jógee d'accord honorable député daf ci am ci propos yi yoo xam ne daf leen concerné parce que image yi wane wuñu lépp am na ci image yi fi nga xam ni foofu la met Suzanne Camara waxee ni Abdoulaye Wade sàcc la am na Idrissa Seck géwal la daf ko nàmp mënul nekk président ci Sénégal loolu daf leen naxari yéen waa réew mi alors mais yow da ci da ko accuser propos yi da nga ko accuser indirectement Macky Sall parce que su ma la déggee ci sa page Facebook suivre naa ko parce que da nga ni ki koy yebal ki nekk ci ginnaaw Ahmed Suzanne Camara ku nekk xam na ko parce que bi fi Idrissa amee ay problème am na nu mu taxawee woon ndax propos yooyu <coughs> indirectement laa wax parce que tudduloo ki nga xam ni mooy Macky Sall que ni moo nekk ci ginnaaw Amath Suzanne Camara. xam nga de la même manière que mën na la sa émission yaa koy doxal. Mhm. yaay jël question yi teg ko soo bëggee ñu wax si soo bëggee ñu yem si question yooyu rek. Mhm. de la même manière man lu may wax ak heure bu ma koy waxee si man lay dépendre donc loolu ma wax nga xamante ne ne wax naa ko sama sama Facebook bés lu ma si tollee ak lu ma si nar a wax dinaa ko wax mais loo xamante ne leer na te mu leer kooku di wax di saaga nit ñi dafa bokk ci parti te gisuñu sanction bu am bu jóge ci ci parti bi gisuñu ñu ñu kenn ku daf ko defar remontrance ci noonu mhm. te gis nañ ne aussi auparavant am na ñoo xamante ne ñu ngi doon ñu ngi doon def lu mel noonu mhm. yor ay journal di fi saaga ay nit di wax ñu ñaaw lu ne te ñooñu tey dañ leen defal promotion donc lu si mënti doon rek su si jotee dinañ ko wax mais lu ma mën a wax mu leer mooy ñu fii ñu toll difficulté difficulté yi ñu toll ñu di xool di bàyyi loo xamante ne mën na taal réew mi ëllëg muy continuer mhm. parce que kooku jug dóor ko dafa am moo tax mu dóor ko même ba muy def ak émission ak ak ak Mamadou Massaly mhm. am na benn moment sax peut-être mo retenu dina ko def parce que agression du rek agression physique mhm. dafa am agression verbale te agression verbale yu mel noonu dafa dafa laal lu xóot. dafa laal lu loo xamante ne dépassé woon nañ ko suulul dañ ko tey fu ñu toll ci Sénégal. mooy nga nekk pouvoir nga nekk opposition. d'accord lenn moo ñu war a ñor mooy nan la ñuy def pour ñu jógee fi difficulté askan wi. d'accord naa su dee. Mhm. dañu bëgg dans la politique. Mhm. bu ñu def. saafara wuñ difficulté askan mais accusation bi ni nga waxee indirectement da nga jàpp ni Macky Sall. moo nekk ci ginnaaw. je je te ah, donne la Suzanne Camara su dee su dee saafarawuñ problème problème askan wi. waaw ba pare daal di euh, bëgg maintenant dans leur politique. Mhm. di bàyyi ñoo xamante ne ñu ngi seen biir ñuy wax lu leen neex dama ne suba mën na jur loo xamante ne du ngëneel pour pour dëkk bi. te su boobaa. Mhm. la responsabilité bu leer naññ mooy ku jiite réew mi mooy le président mac Sall. d'accord merci beaucoup monsieur Bokoum euh, monsieur le ministre Youssou Touré Youssou est-ce que di koy faral di dégg que ni Amath Suzanne Camara c'est à l'image de Youssou ñu bari dañ koy wax que ni nii la moom mooy mentoram moom lay toppandoo ci nu muy defee euh, bu ñu jógee ci loolu dañu dégg ci sortie bi mu defoon Walf Fadjri nga jéggulu suma def nga benn ex jéggulu nga ci ni nga xam ne noonu la ko defee tey aussi nga nar a jégguluwaat nga jégguluwaat tey ci plateau bi Euh, ndax noonu nga ko bëgg a continuer ak euh, noo gisee comportement ki nga xam ni moom. waaw jërëjëf xam nga man dama foogoon ne débat bi. Mhm. day doon débat bu civilisé bu yiw. Mhm. parce que xam nga ñàkk yiw mooy indi mooy ñàkk yiw c'est-à-dire toogee di waxtaan nañ waxtaan si jàmm ak lu ñu jëmale kanam parce que wax ñu ñaaw ñëpp a ko xam nga. déjà euh, booy comparer loo xam ne ni xel daf ko sax nanguwut nga taxaw yekk un président de la république une institution lu nekk une institution laa wax nga ne kii xëy na am am na keneen ku mu wax nga ne na ko tëkk si koo xam ne ci institution la waxuma la institution sax mais ku la mag sax da ko war a jox cër yar boobu lañ am suñ cosaan wax ju ñaaw mag buy màndi sax ak di def lu dul noonu doo ko ko teg loolu mooy suñu euh, cosaan ak suñu yar ak suñu diine aussi mais dama ne buñ ñëw di jox nit ñi am fu ñuy féetale nit ñi foo xam ne fi ñoom ñoo fa jiitu suñu ñaaw ancien spermatozoïde ku ko wax wadd bu mu koy wax Wade ñaata at la am ñaata at la Wade am euh, la Ablaye Wade am futur cadavre loolu suñ cosaan la loolu du wax ju ñaaw président Macky Sall damay défier ku mu ku ti doon rek nga taxaw nga ne mos naa dégg président Macky Sall rek wala ngeen génne enregistrement bu mu wax wax ju ñaaw wala wax ju tekki wut donc mbir mi am am na lu ko waral yaa ngi naan masali si benn débat si beneen télévision wal fajri waaw wal fa xanaa amaat rek lañ gis est-ce que amaat moo jóg dóore am na lu mu wax am na lu mu wax lu mu wax li mën nañ ko ñaawlu <coughs> mën nañ ko ñaawlu te bu boobaa aussi yoon lay doon mais est-ce que moo tëb fekk est si moom la jóge donc yooyu yëpp ay comportement yoo xam ne dañ ko war a ñaawlu parce que réew mi kenn ñun ñëpp ñoo bokk réew mi mais du parce que tey koo nekkaloon nekk toog moom. mais ñëpp a yem alors que ah. Amath mi ngi xaste ci. waaw non xanaa xaste la def ko nam. ma ne ma ne ma ne ma déglu ma da ne dafa xaste. jàmm lañu bëgg bu dëgg dama ne xaste ak dóore dafa jiitu nguuru Macky Sall. taala si euh, taala la ay marto xam naa Macky la ak Amath ñoo ay marto. à l'époque ñan ñoo fi dóor Talla Sylla ba bàyyi ko presque mu dee yàllaa ko sauvé Babacar Seye kan moo ko rey kan moo rey Babacar Seye ñun on a de à recevoir de personne mooy fu ñu président Macky Sall ak équipe du ñu jaarale c'est-à-dire que ñu yiw ñu jub man bu ma nee damay balu damay balu parce que waruñ toog tey jii ak jafe-jafe askan bi toog di leen si yokkal leneen di leen si yokkal ay xasteeka ak saaga ak ay fayu Pape Ngagne war naa la mën a war nga maa mën a saaga ma bañ a fayu parce que loolu mooy kanam buñ demee ba si kanam ma woo la ne lii nga def de jaaduwut ñun ay nit lañu donc dafa am ay situation yoo xam ne waruñ ko comparer te président Macky Sall si boppam mosta nangu te lii may wax xaw ma luy maa gën a bon fii mais je ne triche pas fu mu toogee ñun lu mu njëkk a wax mooy na wax ji yiw na wax ji sel bu fekkee ni président Macky am na ku mos a dóorlu wala ku mos a xas wala ku mos a saaga nañ ko wax donc wax ju ñaaw wax ju salte dafa am fu mu jógee si ay homme politique yu fi nekk si ñoom ñoom si ñoom la cosaanoo wax ju ñaaw ak i saaga ak i xaste di xas ñoo xam ne duñ seen morom donc si loolu. Euh, boo bëggee saafara dara boo bëggee saafara nañu fexe ba wax ji yiw ba képp ku wax lu ñaaw muy Youssou ture muy ma sàmba muy ma demb wala képp ku def lu rafetut ñu delloo si ko yoon mais nee naa li histoire politique Sénégal am na ay nit ñu si ràññee si wax ju ñaaw ak si jëf ju ñaaw gis nañ ñu fi rey bëri nañ ñu fi far seen bakkan bëri nañ gis nañ ko dañ see teg suñu bët donc euh, bu ñuy débattre fu ñu war a gën a centré wax ji. parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ. c'est pas parce que nekkuñu si benn boor si benn camp ku nekk di war a chargé. ñun lu ñu war a def bu soobee yàlla ak yonent bi dañ ko def. d'accord parce que duñ nangu. kenn saaga kenn Ablaye Wade. Ablaye Wade si boppam kilifa la mag la kenn warut a jël lu ñaaw teg ko bu weesoo. ay termes politiques. si lu mu def donc loolu ñun dañ koy ñaawlu. te ñaawlu nañ ko te nëbbuñu ko aussi. d'accord dañu toog wax ko publiquement mais wax ju ñaaw ji kat ñu ngi siy jégalu donc buñ fi sulli. ay kuy wax lu ñaaw ak ay nangam nangam Macky Sall kenn mënu ko taxal si wax ju ñaaw parce que xamu ko yaree wuñu ko gouvernement Wade. def nañ ko lu nekk kenn mosut a dégg président Macky Sall. mu yëkkati lu tuuti. teg ko si kaw kii voilà merci merci monsieur le ministre euh, su Serigne Mbacké question yi mu posé yëpp yaakaar naa dégg nga ko jarul ma ciy dellu si wax na Talla Sylla wax na Babacar Seye wax na fi ngeen jaar yéen ak Macky Sall te dara rafetu ci lan nga ciy indi. waaw li ma ci indi mooy euh, réew ñëpp dañu war a liggéey pour dal am ci réew. rawatina ñu ñu dénk réew mi je pense que euh, am na ay détails yu bari yoo nga xam ni duma ci sori. Mhm. mais dama leen di invité ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi tey ñu am dal mhm. euh, rafetlu naa trop keroog bi ñu yóbboo Baara Gaye di ko te ñu renvoyé ko ma gis de l'UJTL wax ni ñi ngi doon séntu pour ñu génn toj ay kaar taal dëkk bi il se trompe parce que li fi nekk Abdoulaye da ko fi def duñ ko yàq donc danañu leen jàngal naka lañuy defee opposition mais lii am tey ba mu tàmbalee ca wal fajre ak lu ko jiitu bu ñu ko saafara woon ca saase fañ ko war a saafara kon xëy na fii ñu egg tey duñ fi egg mais. Euh, naar bu ndaw lu mu wax ca gàdd ga la ko déggee kenn du ñu dégg ñu wax lu ñaaw mais nag dafa moo xam fi la fekk am na rappel bu Youssou Touré doon def léegi PDS ñoo génn formé APR lu fi ko àndoon ci biir may fàttali parce que am lu mu wax nu mu caricaturé Macky président Macky mu bëggoon lool mu mel noonu Macky Sall mel noonu te man li ma jàpp tey mooy mel noonu. ah lu tax lu tax. 2009 mhm. Pape Ngagne président Macky Sall dafa dem di voté ji Fatick ñëpp ngi koy fàttaliku image yooyu. Mhm. mu tax yoroo pièce d'identité mu bëgg ñëpp jël bulletin dugg bi génn dem yoonam. Mhm. kooku image boobu man ba léegi dama ko denc. non may ma tuuti Youssou dama lay déglu bi ngay wax. non dama bëgg may ma s'il te plaît dama jiiteeg yeneen boo bëggee fii ba émission bi jax mën naa ko lim. mu dem États-Unis yàggul matul une semaine être ci lay toll. je crois que États-Unis la woon en voyage la woon demoon à bi ñu koy wax collaborateur mi démissionné ngir réaction bi mu ci am ku bëgg a dem demal lu jiitu loolu ci conférence de presse fii au palais. muy wax ci ceeb bi ñu yokk ak bi ñuy wàññi mu ni ceeb bii la ñu wàññi ku benn ku bëgg beneen ceeb sa affaire la mm-hmm. muy dem kër Momar Sarr ci lu dul dara dem en tenue de combat donc en termes de communication il avait perdu la sérénité te kilifa dal la ñuy séntu ci moom mm-hmm. saa bu kilifa ji wanee ni situation bi garaaw na rek mi tàkk dafa war situation lu mu metti metti metti nga ànd ak dal dominer dominer situation bu ko defee parce que un président day rassurer mais président bu énervé njabootam xeex président bu xeex président bu saaga njabootam xeex te tey ku ko bëgg ak ku ko bañ Macky Sall est le président de la République c'est le père de la nation ci moom la ñuy roy te may seere li ma wax yàlla rek laa ci jël seede que ñi ko gën a bëgg mu réussir man ci laa bokk parce que Sénégal la bu tax ñuy liggéey mu réew mi neexee ñëpp la neexal mu réew mi xëyee tàkk ñëpp la tàkkal donc loolu nga xam ne moom laa doon séntu sérénité bi may séntu ci président moo desee nekk ci moom mooy sama lecture bu dese nekk ci moom nag day feeñ ci njabootam dañu juger le cas de de kii jàll nii léegi muy un cas isolé mais am na ku ko wax defe naa ni Thierno Bocoum la l'honorable député violence verbale muy indi violence physique. effectivement est-ce que am na benn bis bu ngeen di xëy te gisu leen ci camp wu ñi nekk tey au pouvoir moo xam ci biir APR la ñu dóorante ay yàpp bërki dama ci mujj Thiès tout le monde est témoin ou bien diggante APR ak Macky 2012 ak Benno Bokk Yaakaar est-ce que am na benn bis bu ngeen di xëy te gisu leen ñu dóorante ay yat mais donc violence boobuy am organisée mais naturellement day génn ci individualité yi nga xam ñoo ci gën a nooy bopp mhm. parce que dafa am façon nit yoo nga xam ni seen xel fi mu toll mooy bu ñu waxtaanee jëw Pape ngañ ñoom bu ñu génn mu teg Pape ngañ pes ko parce que foofu la seen xel toll donc bu ñu bëggee encore une fois loolu dañ na ñëpp dellu ci dal rawatina ñi jiite réew mi parce que réew mu amul sérénité du jëm kanam wax naa ko fii ci plateau bii benn jour ma di ko fàttali dafa am ay weer ma dem France di waxtaan ak ay homme d'affaires bi mu waxee ba wax ji jeex kenn ki ci ñoom c'est un chinois <laughs> monsieur le ministre nous allons quand prendre risque de venir chez effectivement du risque. lu xew wax nga ko fii. mu ne ma xaw ma xam nga ko la xamuloo ko mais tous les investisseurs ñi ngi daw Sénégal mooy dëgg gi. d' accord tey ñëpp ngi daw jëm Abidjan. Hmm. ñëpp ngi daw jëm Guinée. d' accord du suñu avantage du suñu njariñ. ñaanuñu woon Sénégal mel noonu. donc ci question yi mu la interpellé ci violence yi fi amoon muy l' affaire Talla Sylla la affaire Maître Sèye ak yeneen li nga ci tontu mooy ba muy am yeneen a yéen. déedéet ba muy am yéen yéen a ko àndoon muy yéen ak yéen ñoom Macky Sall loolu nga bëgg wax foofu déedéet xam nga loolu sax c'est une partie de la réponse mais li ma ci teg mooy euh, ñun defe naa ni ko wax ci Sénégal danaa la man républicain la waaw républicain mi ngi tàmbalee ci tey bu ñu demee tribunal parce que tey Pam Ngañ bu ma la tooñee da nga ma yóbbu tribunal mhm. bu ma tribunal attee la tribunal atte ci loolu ñu tënku d'accord donc man loolu tribunal attu atte ci lay tënku xëy na nag yuusu fekkee na ba ñuy dóor wala fekkee na ñu rey wala xam na ku rey. bu ko ne mu wax ko. voilà man li ma xam mooy le tribunal atte. d'accord léegi nag euh, débat la boo xam ni xam naa dinaa ci fekk si honorable député Thierno Bocoum dinañ ko dinañ ko dinañ ko tëj pour ubbi beneen mais bala ñu koy tëj xam naa ni ñàkku ay interpellation ci kenn ku ci nekk ñu def ci benn tour de table rek ci loolu après ñu ubbi beneen beneen ponk yoroo ci li ñu. fii man de sérieusement baax na. man honorable député. <laughs> baax na. monsieur Touré su euh, waaw. Euh, damay euh, rafetlu euh, maanaam euh, tey gu commencé gee am si suñu ñaari concitoyens suñu ñaari xalaat suñu ñaari xarit yi mais xam nga sama xarit ministre Serigne Mbacke Ndiaye wax dëgg yàlla xamee woon naa la xamee woon naa la neneen lu dul tey ji nga taxaw euh, di tuumaal Macky loo xam ne li fu mu juddoo xamee wuñ ko ko Sénégal yi xamee wuñ ko ko yar lañ ko xamee ak maandu ak teey boo toogee nga ne da doon voté pour buure urne bi euh, waxuñ buure benn journaliste dama ne mhm. benn journaliste nañ indi presse écrite bi wala presse parlée bi benn journaliste wax ko dañ ne daf ko tere mu puus nii loxo bi bu dëgg loolu bu amee te encore c'est à vérifier ak nga taxaw nekk chef de parti ne policier bu leen dóor dóor leen ko wut leen fiil ku leen gaañ gaañu leen ko ku luqi seen bët luqi seen bët kookoo xam violence président Macky Sall bu génnee ñu interpellé ko si vague de démission te vague de démission dafa amut parce que Jacques Diouf démissionné wut Moubarak Lô xëy na moo démissionné am na ay raison ku xariñ la liggéeykat la mais lu président wax tey jii parti boo mun a bokk da nga ko war a rafetlu parce que dafa ne ñun yar ak teggin la ñu xam lépp loo xam ne li képp koo xam ne ki da nga taxaw da nga war a respecter Sénégalais yi may leen cër donc lépp loo munut jarul nga naan man maa ko man maa ko fi dàq loolu la président Macky Sall wax où est le problème par rapport à sa lan mooy problème bi exemple yu mu joxe yi c'est des non exemples. d'accord. amul benn impact sur la réalité sur le comportement du président Macky Sall. d'accord Macky Sall tey jii boo doon def sondage. Mhm. nga ne ban homme politique boo gën a yaw bu amee juróomi nit lu ñuy wax nañ ko si dugal. d'accord donc kay violence nañ ko teg de côté. Mhm. di ñaan yàlla. Mhm. di ñaan Sénégalais yi muy homme politique yi muy ñun ñëpp. di ñaan ñëpp ñu bàyyi violence verbale. parce que violence verbale aussi baaxut. d'accord il faut ñu d'accord si di wax wax ju ñaaw ak ju ñagas baaxut bàyyi violence verbale bàyyi violence physique ñu def ko ndax réew mi. d'accord euh, monsieur Ndiaye. <laughs> c'est bon xam nga mën dem ci beneen tool mën na xam nga loolu ñuy ma wax bu ni woon bu ni woon amul. d'accord ñu mën ci discuter. mais da koy expliquer. d'accord voilà voilà donc beneen ponk bi nga xam ne bëgg naa ñu yëkkati ko rek mooy gis ngeen nii temps yi euh, monsieur Touré sax wax na ko ci départ yi ñuy remarqué ci. ci entourage yu président muy ci Benno Bokk Yaakaar muy ci muy ci biir entourage présidentiel bi euh, loolu itam dafa tax nit ñi jàpp ni dafa am beneen pool beneen langue bu gën a yaatu boo xam ni moom la président bëgg a taxawal loolu nag euh, mu jaaxal itam ñu bari parce que langue buy gën a yaatu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni coalition coalition la parce que coalition yi ci nekk yëpp daanaka ay coalition la ñu. donc pour donc loolu laa bëgguñu waxtaan ci xool lan moo ko war a mën a indi lan la war a mën a jug Sénégal parce que loolu moom mooy ponk bi njëriñ bi ci Sénégal mën a retrouver ci loolu yëpp yoro jërëjëf jërëjëf euh, euh, effectivement gis nañ ci presse bi ñuy wax nekk dafa am lu ñuy ooyee euh, majorité présidentielle maanaam benn coalition bu bees boo xam ne nii euh, lu ñu nekk di tabax la euh, man dama bëgg njëkk a demee li tubaab di wax postulat postulat mooy maanaam pour sunu mbokk wolof yi nga mel ni rek nga ne yàlla am na euh, ku neex nga gëm ku neex nga bañ a gëm waaye ku am xel di nga xam ne yàlla am na postulat bi mooy que dañoo seetlu ci Sénégal et c'est ça c'est sociologique dañoo seetlu ne. sénégalais yi ci seen bopp ñu coalition maanaam dañoo jàpp ne mbooloo mooy doole c'est-à-dire sénégalais yi dañoo wóolootul nit kese wala organisation kese loolu homme politique defe naa xam na ko mhm. ba tax na foo mën a dem muy ci opposition bi mu ci ñu nekk au pouvoir ku nekk ngi ut non renforcé woo kooku moom lu mën a nekk la après postulat boobu dama bëgg a teg interrogation mooy maanaam laaj euh, interrogation bi mooy il faut que nit ñi seet nit ñi ànd lan moo leen boole maanaam ce n'est pas une appartenance partisane maanaam bokk parti wala bokk dara moo dajale nit ñi am benn raison précise bu tax nit ñi di dajaloo et dans le benn Bokk Yaakaar ñëpp xam nañ ni suñu wax dëgg te yàlla tax réew mi dafa doon jëm ci maanaam ci pax moo xam ne su fa yeggee du baax ci réew mi ay patriote maanaam ay parti politique ay société civile ay chanteur et cetera dajaloo pour bañ réew mi pax moomu mu jëmoon mu egg fa mu amoon nag objectif objectif bi mooy loolu bañ a am ba pare ñu ut président bu bees damay tënk wante te loolu aussi il faut que homme politique yi di ci d'accord gis nga yenn saa yi dañuy dem ba fenn ñu arrêté raisonnement bi gis nga ba ñu décidé ne dañuy booloo foofu la waroon poser question ne booloo bi kañ lay tas parce que nag bu fekkee wax rek te yàlla tax ñëpp xamoon nañ ne coalition bu mën a doon dina egg si benn moment mu arrêté. pour suuf bi. non fa laa jëm dafa lank rek mu arrêté parce que xam nga lu tax. Mhm. bu fekkee da ngeen bokk li ngeen bëgg. Mhm. dina am benn moment boo xam ne nii il faut ngeen tasaaroo. maanaam sax am na mu tooñ Thierno Bocoum ñu moment du partage du butin. fa la xuloo yi di commencé am na defe naa premier bu ko fi waxoon mhm. loolu dama koy wax pour reeloo rek ma jàpp ne nag bu fekkee wax rek te yàlla tax te wax dëgg ci ma gëm euh, waa APR bu fekkee dañuy tabax loolu ci dëgg la ñàkk parce que nag comme coalition lu ñuy laaj la mhm. ay échéance di jege si ku ci nekk am nga sa droit seet ñi nga jàpp ne nit ñu baax lañ. Mhm. nga jéem leen a xëcc ci yow pour ngeen ànd def alliance boobu loolu man gisuma ci benn problème lenn rek moo ko mënoon a gàkkal te gisaguñ ko mooy ngay oo di oo ñoo xam ne nii dañoo def toj toj ci réew mi wala ñu def loo xam ne nii kenn mënu ko nettali mais bi ñu nekk ci opposition bi ku ci nekk yaa ngi seet non renforcé woo mhm. parce que base sociale mooy tax a politique parce que base sociale même ku nekk ci opposition bi da nga koy soxla waxuma la ki yore réew nga xam ne base sociale su fekkee am na doole mooy tax stabilité am te stabilité mooy tax nga mën a li nga bëgg tabax nga tabax d'accord voilà daal laa ci bëgg wax dans une voilà honorable député yow en tant que politique xam naa ni du la soxal parce que yéen génn ngeen nu ñuy doxalee waru <laughs> intéressé leen mais itam en tant que citoyen nit ki war nga gis ñi nga xam ni ñoo yor sa sa sa devenir seen doxalin mm, moo tax itam mu war la mën concerner question boobu nga xam ni jëm na ci ñu fi jëlee benn bokk yaakaar war fi mën a indiwaat leneen lan la mën a indi. pour e-, effectivement wax nga ko léegi ñun jóge nañ Benno Bokk Yaakaar. Mhm. donc Benno Bokk Yaakaar si boppam du cadre bu ñu intéressé mais lépp loo xamante ne taq na si président de la république nga xamante ne moom mooy déterminer la politique de la nation. Mhm. mu doon coalition bu muy def wala mu doon lu mu mënti doon def ñuy intéressé. bien parce que loolu su marché dañ jàpp na ne su dee dafa jëm si defar réew mi dina marché su dee aussi doxul. dina am impact ci réew donc ça nous intéresse mhm. euh, ça nous intéresse mais dañu lu gën a doy waar mooy orientation bu mu nar a jël je vais m'expliquer d'abord nañu dellu ginnaaw tuuti si Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar deux phases la mhm. deux phases yi am na slogan boo xamante ne leeral na ko dafa ne gagner ensemble gouverner ensemble phase bu njëkk bi moo nekkoon gagner ensemble gagner ensemble alliance la coalition boo xamante ne la coalition électorale la maanaam nan la ñuy dajaloo pour daal di jëli fi Abdoulaye Wade ku mel ni Idrissa Seck bokkoon ci alliance boobu parce que tout simplement dafa sàmm kàddoom ne président bu ñëw rek boo xamante ne mooy jiitu moom lay àndal donc loolu ci entre deux tours yi la ba loolu jeexee dañ dem ci gouvernement gouverner ensemble le président Macky Sall dafa en tant que mu nekkoon candidat nekk léegi président de la République dafa woowaat ñoo xamante ñoom la ñu àndaloon pour am base yu mu teg ak ñoom par rapport si gouverner ensemble boobu maanaam mu mu jógee si coalition euh, électorale dem si coalition de développement parce que dafa ne yoonu yokkute laay doxal mooy la voie du développement lan ngeen ma siy jàppale pour que ñu daal di jëm si voie boobu si yoon boobu donc suñu jógee si après deuxième tour bi coalition développement boobu moo taxoon mu woo ko mel ni Idrissa Seck parce que foofu laa maîtriser wax ko kooku tamit wax ko condition yoo xamante ne leeral na ko jarul mu si ñëw Sénégal yëpp dégg ko te moom weddiwu ko donc mu doon condition yu leer si si wax ko dëgg si jàppale ko si expertise am si def lu mu mën pour mu pour mu réussir mais lan lañ seetlu lu ñu seetlu mooy coalition pour le développement boobu malheureusement ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné parce que ku ko créé si boppam deful mécanisme yuy tax ñu fonctionner xam nga soo waxee jël nga ay ministre tabb leen ministre dafa nekk soo xoolee ci chaîne bi fu mu nekk ci chaîne bi mooy fu ñuy exécuter ministre nekkul fu ñuy déterminer la politique de la nation donc dañu jàppoon ne soo jëlee des candidats yoo xam ne dañu am programme am expertise am expérience am ñu leen wër am ay sommité am ay cadre soo leen boole da ngeen di dajale pour ngeen travailler ci vision bi mhm. fan ngeen di jëm nan ngeen fay demee yan outils ngeen di utiliser soo leen paree nag ngeen soog ko jébbal ay ministres yoo xam ne dañ koy doxal mais problème de vision boobu daf ko daf ko dafa écarter ñëpp complètement de à que tey lu mel ni assise nationale signé ne ko ñëpp xam ne ñu ne ko c'est vrai il y a eu des réserves mmh. réserves yi wax nañ ko du jóge si bopp partem nangul nañ ko ko régime parlementaire bu d'accord ci nangoon nañ ko am na ñu ci waxoon tamit ne Sénat ci la nañ ko ko mais en dehors de ça lu ci nekk li am solo te bëri pourtant signé na ko mais dafa teg assise nationale yi mu jël lu mu jox yoonu yokkute ne mu bii lañ ma fale donc déjà à partir de ce moment jëlul en considération nombre bu am solo boo xamante ne méngoo méngoo woon nañ d'accord ci assise nationale jël leen en considération en termes d'expérience en termes d'expertise et en termes de vision jël leen en contradiction en en kii euh, en compte alors lu mu jël en compte mooy moom lu mu tracé certes c'est le président de la République mais soo nee coalition un cadre boo xamante ne ñii ay ancien premier ministre lañ ñii ay candidat lañ présidentiel woo ay experts ñu travailler sur le Sénégal si secteur yu ne ñii dañu am ay cadre seen biir am ay sommité nga teg leen si cadre nga leen secteur bi secteur bi secteur bi la ngeen si xalaat pour faire une vision loolu amul donc coalition de développement boobu a été biaisée finalement coalition de soumission la ko def maanaam ànd leen ak man waaye doo leen jox seen seen kàddu si dara. Mm-hmm. man maay le président de la république man maay wane yoon bi am ngeen ay poste yam leen si post yi soxlaatuma leen si leneen donc loolu moo nësaxal coalition benn Bokk Yaakaar si phase de développement bi alors suñu ñëwee ne léegi dañuy dañuy bàyyi coalition boobu dañuy wut beneen coalition te jëmuñu si année électorale c'est-à-dire que jóge wuñu si année c'est-à-dire tey fu mu toll nii mënatul wax coalition de développement tey parce que waree na tout simplement que ne moom amul cadrage bu mën a tax ñu dem ci coalition de développement donc ñuy ñëw suba dañuy ñëw ci cadre boo xam lu ñuy wax contrat d'adhésion la dañuy ñëw dugg fekk loo xamante ne moom déjà waree na ko waree na tey ku mu àndal soxlawul sa xalaat parce que amul cadre pour réflexion ku mu àndal lu mu lu mu tracé rek foofu ngay ngay ngay nekk ku mu àndal maanaam lenn la la soxlaa mooy ñu ngi ànd. ñu ngi nekk ensemble mais man maay choisir la politique de la nation te loolu may wax du Idrissa Seck rek moo ko wax dégg nañ fii le président le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng ne problème de fonctionnement yi dinañ ko régler ça veut dire qu'il y a des de fonctionnement dégg nañ wax ko partout ñu koy wax mel na ni avancé na parce que siège am na ci et tout oui mais doolu laa la wax dama ne cadre bu ñu mën a toog pour mën a waxtaan si loo xamante ne secteur par secteur la amagul te amagul un an et amagul moment boo xamante ne vision bi développé na ne tey fi mu toll nii euh, vision bu ñu am muy vision économique 2013 2017 teg nañ ko ba pare. d'accord vision yoo xamante ne jëm na ci secteur bu ne teg nañ ko ba pare. Mhm. donc amatul leneen loo xamante ne xalaat nañ ne mën nañ ko ci yokk. d'accord maintenant. Mhm. dama ni orientation bu mu jël moo ñuy poser problème parce que su dee da nga teg une alliance une coalition électorale te yow jëmagoo ay élections 2017 ñëwagul te yow problème yaa ngi nii taxaw problème yoo xamante ne dafa laaj secteur. nga xool dafa laaj secteur bu ne nga xool nan la ñuy def pour rek pour génn difficulté sénégalais si difficulté yi su dee da nga xalaat yow nan ngay def pour falu 2017 à partir de maintenant ça pose problème et c'est inquiétant. d'accord. voilà merci euh, honorable député dégg nga question bi nga xam ni wax na ko du question sax mais euh, mooy inquiétude am maanaam jaaxlem ci ko xam ni mi ngi bëgg a tabax benn coalition te demaguñu ci ay élections et que demande sociale bi mi ngi taxaw li ñuy xaar ci moom bari lool. Euh, te déggaguñu nag vraiment loo xam ne moom mooy indi itam coalition boobu ay njort lañ ci am ak ni ñu ko déggee itam xawul leer trop lan nga ci mën a indi yu suturé ci ay ay gindi. waaw xam nga affaire <clears throat> coalition bi moom euh, mbir bu yomb la. Mhm. coalition bi nu mu juddoo la. coalition bi dafa yàggut parce que coalition bi coalition deuxième tour la. du coalition premier tour mhm. du premier tour. ma ne àdduna. mais coalition ba euh, premier tour bi moo problème. waaw waaw moom laa lay wax rek. moom laa lay wax Macky 2012. waaw d' accord d' accord mën. mën problème fi mu ne. mën nañ si ñëw Macky ñu ngi fi woon si départ bi. Mhm. <coughs> mais man mënu ma nangu aussi ñoo ëpp mérite ñeneen ñi. xam nga loolu aussi mooy problème bi man sama xalaat la du nee nag sama xalaat moo am mais ñoo fi jiitu daal mais mënu ma nangu sama bopp nag laay waxal waxalu ma président nii sama parti mais mënu ma nangu ni ñoo ëpp mérite ñeneen euh, xam nga coalition bi. pour deuxième tour la woon parce que Sénégal yi taxawoon nañ gis ne réew mi suuxal nañ ko ñu ko yore woon jëf nañ ay jëf yoo xam ne fi mu toll réew mi suux na et que il faut ñëpp jàpp si koo munti doon lu sa xel moom munti toll rek nga dugal si sa loxo looloo fi amoon ñu fi nekkoon yi gis ngeen avant ñu fi jóge naroon nañ taal dëkk bi gis ngeen 23 juin 23 juillet 23 août 23 octobre et cetera et cetera loolu yëpp gis nañ ko yàlla moo ñu jàppale. suñ maam bi baax yi ba jàmm ñëw si réew mi coalition boobu nu mu amee pour dem deuxième tour benn candidat buggutoon na ëllëg mu taxaw ñu ne ko bokk nga kat si ñoo xam ne ñu ñoo taal réew bi donc looloo taxoon moo am coalition Benno Bokk Yaakaar ko rafetlu ko. ñàkk pexe la waaw non du ñàkk pexe du ñàkk pexe euh, lu fi amoon mosu fi am lu amoon lu naroon am 2012 mosu fee am. donc il fallait que nit ñi booloo d' abord. donc mais ànd nag. Pape Ngagne ñoom ñëpp malgré ñoom la ñu dem kon. non ma ne Pape Ngagne Pape Ngagne ànd nag même sëy boo takkee euh, jabar soxna pour rafet benn rafetal kàddu gi boo takkee soxna mais xanaa du en un deux ans trois ans rek ngeen di juboo complètement ku nekk xam sa morom lu bëgg ngeen di kii c' est que ànd il faut que sëñ bokkum ànd bi gën a dem tuuti bu ànd bi demee. danañ gis jafe-jafe yi lu dox ak lu doxut ensuite coalition ça ne pas dire que yéen a bokk benn xalaat mën ngeen bokk bëgg-bëgg ni xalaat yi mën na wuute stratégie yi mën na wuute donc si loolu boo nekkee si coalition aussi il faut nga mu parce que coalition bi def nañu liggéey bu rafet te aussi ñëpp. kan ngay wax moom nga mu. da nga ni coalition bi ne ñu nekk si biir coalition bi. non mun bi mooy. Mhm. mais mun ñu xëy. ni ñu ko bëggee woon ak ni ñu ko soxlaa woon rek mu doxee noonu. il faut mu am ay jafe-jafe ñun suñ biir ñun APR ñun suñ biir mais des fois ñu réeroo des fois du ñu bokk fu ñuy doxal mais donc coalition mënta ñëw rek ne ni diine wala ne ni bible boo xam ne bi dañ ko teg rek dañ koy def. Euh, dañ ne woon gañ euh, euh, gagner ensemble gouverner ensemble mais def nañ ko. ku si nekk waxtaan na président waxtaan na yow jox la sa cër léegi nag si biir waxtaan coalition Benno Bokk Yaakaar dafa am aussi jafe-jafe yu askan wi jànkote mooy dund gi mooy mbay mi mooy train de vie de l'État te président pouvoir présidentiel la ñu yore lu mu yenu dafa diis donc il faut ñu def nank ànd bëgg nañ xalaat ku nekk gis nga Idrissa Seck ak réew mi jóge nañ euh, Benno Bokk Yaakaar mais ñoom jàpp nañ ne affaire ah, ku mel ni man jàpp nañ ne sax jóge wuñ si parce que am nañ seen xalaat et que réew mi moo leen tax a jóg comme réew mi moo leen tax a jóg bu ñu amee xalaat bu rafet même buñ bokkul si Benno Bokk Yaakaar mais mën nañ ko indi parce pour réew la parce que pour dëkk bi la parce que mbir mi waxtaan la man mënumaa nangu ni ñun ñu ëpp xalaat waa réew mi ñu ëpp leen gis-gis mënuma ko nangu am nañ seen gis-gis ku nekk am nga gis-gis bu baax am nga gis-gis boo xam ne bi aussi peut-être demeewul noonu donc mbir mi. comme nuñ ko waxee rek comme nu ko nu ñu koy waxee tout le temps nañu fexe ba xam ne nit du mot président Macky Sall def ko fi deux ans assise yu euh, Thierno Bocoum wax <laughs> heureusement wax na ko c'est très honnête de sa part président dafa defoon ay raisons si yu bëri si régime euh, parlementaire et cetera et cetera léegi nag jafe-jafe yi yaakaar naa ne euh, lu ñu siy génnee pour ñu déggoo moo ñu toogaat waxtaan mais xam nga aussi si biir coalition Benno Bokk Yaakaar dafa am ñoo xam ne déjà sax ñu ngi taxaw lenn lañ gis muy 2017 xam nga loolu aussi ça pose problème. Ah parce que bu ñu la falee. wooy dafa am ñoo xam ne ci leader yi waaw si leader yi 2017 lañ gis taxu ñoo jóg duñ ko sax xalaat duñ ko sax waxtaanee si parti bi parce que nag maa ngi bokk c' est l' instance suprême du parti maa ngi secrétariat exécutif duñ fa wax sax affaire élection 2017 suñu mébét yépp suñu xalaat yépp ñu ngi ko jëmale. ba fexe wax dëgg yàlla lu fi nekkoon. parce que ñii buñ fi nekkee am na aussi lu baax luñ fi def mu ngi doon naan xawma place du souvenir extra extra bu ngeen de euh, seen euh, autoroute à euh, péage chantier yu génn yi su de terre président Ablaye Wade moo ko wax moom moo ne Macky doonoon premier ministre moo tax ay chantier génn donc benn nit benn nit dong mhm. mënta am mérite yonent bi sax dafa yoroon ay saaba. comprendre nga yàlla rek moo soxlawut kenn. d'accord donc si loolu daal. nañoo mhm. nañoo nañoo xam ne ñun duñ coalition électoral bu jëm élection ñëpp am nañ seen kii léegi nag pour rassemblement. ñeneen mhm. parce que waa PDS. waa PDS. Mhm. war nañ mën a dugg si euh, euh, war nañ mën a dugal seen loxo si nguur gi. ñu ànd ñu liggéey. d'accord waa réew mi. buñ bëggut cadre Benno Bokk Yaakaar. su lu ma xalaat loolu nag sama xalaat la. waaw si buñ tëjee seen euh, seen kii si benn bokk yaakaar mun na ñëw dans le grand parti présidentiel. d'accord continuer di joxe seen xalaat. voilà d'accord donc. Euh... monsieur le ministre euh, Serigne Mbacké Ndiaye interpellé waat ne la. waaw xam nga transition bi day daal di ñëw parce que war ngeen mën ñëw. war a ñëw boobu sax yëngal na PDS. parce que dégg nañ ñu ko Oumar Sarr waxee dégg nañ ñeneen nu ñu ci tonto euh, ci gouvernement d'union nationale boo xam ni déggandeem nañu ko ba PDS ñu leen ci tàllal loxo am na nu mu yëngale PDS lan nga ci mën a indi itam ci ci gindi ci wàllu. d'abord yëngalul ñu yëkkati yëngalul PDS mu bëgg jox de manière très claire que débat wu PDS dans un gouvernement c'est pas à l'ordre du jour. xam nga lu nekk à l'ordre du les propos yi nga xam ni coordonnateur bi Oumar Sarr wax. waaw xam nga aussi pam Ngaye euh, professionnel de la communication nga. Mm-hmm. Oumar Sarr dafa enregistré émission bu war a jàll dimanche. expliquer lan mooy gouvernement d'union nationale. gouvernement d'union nationale pour mu am dañuy dem ba réew nekk en crise mm-hmm. dara doxatul kenn dematul kenn dikkatul. moo xam ki nekk au pouvoir mooy woote moo xam ay facilitateurs ñooy woote dajal ñëpp pour ñu former un national Sénégal eggagul ci loolu donc nekkul à l'ordre du jour te bu ngeen suivre nga gis ni Omar Sarr loolu ni s eggoon foofa eggaguñ foofa donc nekkuñu ci loolu xam nga lu nekk à l'ordre du jour au PDS gagner élection locale yi jëlaat pouvoir bi en 2017 loolu moo nekk à l'ordre te ci loolu la liggéey mais bala may bala may sori Youssou dafa wax ni en réew bi dañ ko doon suuxal débat boobu sénégalais yi tranché nañ ko parce que loo génn ci réew mi muy dégg réccu nañu fu Ablaye Wade nekk jëli leen ko ak yeneen yu ñuy teg yoo nga xam du sama discours man di ko lance un défi bu gëmee di réew mi dafa suuxoon man ma gëm ni réew mi tey la aw ci yoonu suux yuusu demi dix heures nañ ànd sàdd ga man a yow ñu dox ci mbedd bi billaahi wallaahi di nga mel ni kaña gu dugg marché xalaatu leen génn ci di dox hmm. tey ak li ngeen teg sénégalais yi donc xam nañu réew mi est-ce que dafa suuxoon démb wala tey la réew mi suux deuxièmement remous yi ngi wax bari na c'est vrai sama xarit nga sama lépp nga maa ngi la koy ñaaral xam nañ ne aujourd'hui au niveau de la l'APR seen problème mooy ku fa am responsabilité te boo ko APR ñu nangu ko la preuve ñu ngi def tout pour yow nga nekk ministre de l'éducation nationale nekkatul secret non non bu ñu ne astafurlaa xam xam naa ko porte ma plainte xam nga ko xam naa ko donc cër bu nit yor tey te bokkoo ci seen parti ñu ngi koy fexee nangu. pour jox ko seen bopp. alors non d'ailleurs moom rek wax nañ. mais dëgg bien sûr. ñoom wax nañ jëlee Serigne Mbaye Thiam. wax na léegi nii Macky moo nekkoon premier ministre Ablaye Wade bi chantier yi génn de terre dëgg la Ablaye wax na ko rendre ko hommage ñëpp nangu ko mais ku nekk xam ne aussi rôle premier ministre dans un régime présidentiel. Mm-hmm. donc certes am nga mérite parce que buñ la yónnee dem nga fañ la yónni buñ la def loo def nga lañ la sant mais def naa mérite essentiel bi. kala yónni sant la am relation yu ko permet bu mën a mobiliser ay fonds li ci ëpp solo moom la. Mhm. li ci di seen rôle nangul nañ leen ko rafet nañ parce que Abdoulaye da wax na ko ñu jaaraat. Mhm. mais ngeen nangu aussi ni annonce bi ñuy wax tout le temps ñu wax dellu ci tous les marchés Macky Sall moo ko doon approuvé Macky Sall moo ko doon approuvé plan jaxaay bii ñuy wax tous les marchés Macky Sall moo ko doon approuvé loolu it dama bëgg ngeen di ko sóoraale di ko boolewaale ci seen raisonnement. olof yi dañu ku yanu ab dof boole ko ay sagaram mhm. su ci amee lu baax yéen a ngi ci su safaan ba amee yéen a ngi ci donc soow mi dañ ko rafetal duggee ko jabi loolu mooy li nga xam mu mën a nekk maintenant coalition bi nga wax olof yi dañuy wax ni bëy su àndul bëy yi ànd ak cere yi j'estime que li ma gëm mooy dafa am audace bu manqué woon président Macky Sall bi mu jëlee pouvoir bi moo ko topp ba léegi parce que 2012 man bokk naa ci ñi gëm ni coalition bi ànd ak moom yëpp faluñu ko faluñu ko li ko fal mooy le peuple sénégalais dans son intégralité moo décidé woon changement am. man gëm naa ni Idrissa Seck Moustapha Niasse Ousmane tanoor keneen ak keneen deuxième tour bu ñëwoon voté leen Abdoulaye Wade tax sénégalais voté Abdoulaye Wade donc bu gëmoon loolu moom gëm ne yàlla moo ko jox nguur day dem élection législative ci bannière parti politique am am une majorité à l' nationale kon tey jafe yi am du ko am. mais amul woon audace bi amul woon fit wi tey conséquence sur cent cinquante députés soixante cinq députés à peu près la ci APR am mu nekk problème donc comprendre naa leen parce que coalition ba ñu nekk AFP di am candidat en 2017 je le dis wooy fort wax naa ko du benn du ñaari yoon Malick Gakou yàlla moo ko mën a teree doon candidat yàlla bu ko yàlla dogal parce que lii tax mu bañ a doon candidat du doon sago Ousmane Tanor Dieng ni parti bu mel ni parti socialiste ak histoire am ak fi mu jaar xel xalaatul ñu dem élection te doo am candidat waaw ñooñu boo ànd ak ñoom di leen yafal di leen duufal ba 2017 Idrissa Seck leer na il est candidat en 2017 bu ngeen coalition bu 2017 c'est pour faire da ngeen di ànd ku nekk yafal sa bopp bu ngeen eggee ngeen jàkkaarloo xeex je pense que xel nanguwu ko donc jaadu na tey ça vraiment mën naa ko comprendre bu baax a baax mm-hmm. président Macky Sall wut nag dooley boppam. seet ñi mu yaakaar bi mën na compter ci ñoom ñi mën a àndal xaw bokk ñu gis-gis sur un certain nombre de choses mu taxawal coalition à la limite même coalition mën a nekk dans son parti politique bu ko en 2017. d'accord vraiment mu am candidat. voilà vraiment raisonnement yi dina xam ni wax ji muy li tukkee ci Yoro li tukkee ci euh, ki nga xam mooy Serigne Mbacké Youssou peut-être sax ak. foog nga doo ma may bu tuuti rek. parce que dafa am lu ñuy wax. Mhm. gagner ensemble gouverner ensemble on ne gagne élection présidentielle c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple sénégalais faluñu équipe faluñu coalition benn nit la ñu fal. d'accord donc nit boobu ñu fal. nañ ko nangul aussi ni moo war a mën a jël ay responsabilités. voilà donc muy li ma bëggoon wax rek am na ci ponk yoo xam ne ñuy seetaan am na lu ñu dégg nii daanaka mooy dénominateur commun bi mooy que ni ni ko yoro njëkkoon waxee. Euh, coalition moom ku ci nekk ak gis-gisam kon am na ëllëg boo xam ne mënuñu ko yaakaare boobu coalition feeñ na ci waxtaan bi waaye lu ci ne rek ëllëg dinañu ci dinañu ci gindi. lu ñëw ci beneen ponk bu aju ci wàllu koom wàllu dundin ak doxalinu réew mi parce que premier ministre bi ñu ko déggee ci assemblée nationale accélérer la cadence la wax maanaam ñu baral mbir yi ndax gis nga ni bi mu ko waxee ak léegi mbir yi mu ngi bar yoro waaw euh, ma bëggoon balaa ma tontu ci loolu mu indi benn précision mhm. parce que euh, dama dégg euh, tey ci suba lan wax ni ma ko déggee xaw naa jaaxal parce que ñun nag dañoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar su euh, suñu gisee loo xam ne nii euh, nirul na ne jubul daf ñu jaaxal ma dégg ñuy wax ne premier ministre dafa waxoon ne croissance moom 6 pour cent la ñuy def 2014 def nañ ci sax éditorial mm-hmm. euh, ñu ne ministre des finance ñëw ne 4,5 pour cent effectivement bi ma déggee loolu mm-hmm. vraiment jaxase na mu tuuti parce que man déglu naa DPG bu premier ministre. te dégguma woon fu mu waxee ne dinañ def croissance 6 pour cent pour Sénégal 2014. mais comme demane woon naa ko vérifier ma dem seeti DPG bi mais dama askan bi quand même amul fenn ci DPG bi fu ñu waxee ne croissance Sénégal 2014 6 pour cent lay nekk dañu ñee moo wax croissance bi dina def 6 pour cent et que Sénégal fii ak 2017 croissance am dina egg ci moyenne croissance UEMOA je pense que loolu aussi am na solo. pour ñu fàttali ko population bi. pour mu leer ci bopp ni c'est bon allez-y waaw su loolu wéyee nag. Mhm. Euh, euh, jàpp naa ne ñu ngi ci yoon bi jàpp naa ne ñu ngi ci yoon bi parce que dañoo indi premier élément mais pour ñu accélérer. économie bi ba li ñuy xaar ci gouvernement bu bees bi ñu am ko li ñuy njëkk a def mooy les inégalités sociales maanaam dañoo nekk ci réew moo xam ne dafa am ñu am lool am ñu ñàkk lool ñu ne dañuy fexe ba ñàkk yemandi boobu ñu fexe ni koy yemalee te loolu ni koy defee mooy par exemple ñu ne dañuy def bourse familiale wala mu ñàkk ca d'accord mm-hmm. waaye jël ñoo xam ne nii ay étude wane nañu ne ci extrême pauvreté lañ nekk jox leen bourse boo xam ne nii suñ ko jotee mën nañ ci dugal xale yi école parce que dañ ko ci exiger mën nañ ci vacciner xale yi donc xale yi nekk ci école des fa vacciner wu ci am ci état civil ah man de jàpp naa ne loolu lu positif la te comme amaguloon ba léegi te mu ngi commencé am mën nañ jàpp ne ci côté boobu mm-hmm. accélération am na ci d'accord ñu jóge ci loolu toujours dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales ñu indi ci mbirum wér-gu-yaram li ñuy wax CMU parce que dañoo seetlu ne Sénégal 18 pour cent des Sénégalais rek rek rek maanaam téeméer bu fukk yeeg juróom-ñett ñoo ci amoon mu ñuy fajoo ñu nekk loolu kat néew na lool nañ seet ni ñu koy yokkee ñu joxe objectif ne 2014 bi bëgg nañ ko yóbbu ba 33 pour cent maanaam téeméer yoo jël dinañ ci yegg ci euh, fanweer ak ñett. Mhm. mais sax 2017 dinañ dem ba 95 pour cent ñu ne ni ñu koy defee ñu ne dañuy jël milliards dugal ko ci CMU bi te loolu aussi fekkee wax rek te yàlla tax commencé nañ ko doxal ak ay yeneen exemple dama bañ a monopoliser parole mais soo bëggee mën naa indi yeneen exemple yoo xam ne nii ca dëgg-dëgg ci suñu gis-gis ñu ngi la ñu waxoon ne dañuy accélérer ñu ngi teg ay jéego yoo xam ne nii xëy na suñ ko toppee mu indi loolu. d'accord loolu euh, kii leen aspect yi bu fekkee. dem si nañ ci question bi. ci accélérer la cadence ndax yëg nga ko monsieur Bocoum. waaw effectivement je je pense que lu mel noonu wax lañu fii euh, et c'est important ñu ñu ñu ñu leeral ko xam nga madame le premier ministre dafa def déclaration de politique générale te bu mu remplacer. le ministre Abdou premier ministre Abdoul Mbaye dafa ne dañuy accélérer la cadence ça veut dire que moom nangu na yoon bu ñu nekk nangu na ko et puis c'est normal parce que vision loolu aussi dafa jaral leeral parce que euh, le premier ministre dafay exécuter le président de la république mooy déterminer la politique de la moo tax déclaration de politique générale sax mën naa wax ci régime bii ñu nekk système bii ñu nekk mhm. euh, bizarrerie la doo xam lu muy nuru parce que président de la république moom mooy alors donc euh, moo tax. moo tax moo tax les réformes toujours dafay baax ñu koy orienté si lu gën a am njëriñ. d'accord wala mu nekk si ay futilités. Mhm. alors euh, donc dafa ne dafay accélérer la cadence soo déggee accélérer tey soo jugee da Dakar di dem Thiès soo ko naree def euh, sooy daw je sais pas soo soo daw par exemple 50 kilomètres accélérer mooy nga daw 100 kilomètres ça veut dire que soo ko naroon def peut-être une heure. yaa ngi koy def peut-être 30 minutes ça veut dire soo koy jël en terme économique dafa mel ni dañuy réduire les délais maanaam su ma waxoon ne ne tel kii dina fekk croissance mu yegg fii man su ma ñëwee dinaa wàññi délai ba croissance mu gën yegg avant même ñuy yegg si loolu li ma bëgg expliquer foofu rek mooy que ne soo dégloo premier ministre daanaka si yooyu yëpp amul lenn loo xamante ne leer na wax na ko léegi am na ay projet xam nga soo waxee couverture maladie universelle dafa am lu muy signifier universalité la wax ñoom ni ñu ko waxee ça n'a rien à avec une couverture maladie universelle ni par rapport à l'objet ni par rapport au sujet su ñu waxee bourse sociale bu ñu wax dama ne nañu am cohérence du point de vue social soo ne politique sociale nga am na am cohérence soit da ngay naan damay dimbali nit ñi parce que dañuy leb di dimbali nit ñi loolu il faut ñu leeral ko parce que Sénégal dafa am déficit budgétaire amuñu excédent budgétaire yoo xamante a ñuy dépenser su suñu propre ressource et compte tenu de l'unicité des des caisses suñu lebee boole si ak lu ñu jël si dajale ko si loolu la ñuy jël pour def yooyu yooyu programme social donc dañuy leb pour joxe il faut que mu leer du loo xamante ne lu ñu jël la nii rek di ko di ko di ko joxe alors donc loolu ñuy leb di joxe ban impact la am c'est important ñu dimbali nit ñi mais nañ am cohérence parce que soo waxee sénégalais dañu ndóol te su ci statistique yi soo ko tegee dañ ne un sénégalais sur deux est en dessous du seuil de pauvreté ça veut dire que tey ñu ngi si su ma juumul 14 euh, millions wala 13 millions donc 6,5 millions yëpp dañoo ndóol nga def 250 000 familles donc ça veut dire que ñu ngay touché bëriwul mais fondamentalement soo gisee seen programme yoonu yokkute dañu waxoon 25 milliards la 25 milliards lañ koy consacré par an muy 250 000 familles milliards ba mu yegg 5 ans muy soog a nekk 25 milliards donc dañ ko yóbbu 2017 au lieu au lieu mu commencé tey ensuite soo nee damay def politique sociale damay dimbali nit ñi parce que dañoo ndóol dañoo sonn ba nga xam damay dimbali nit ñi d'accord mais lu gën a am solo mooy balaa nga may nit ki jën nga jàngal ko nu ñu nappee mm-hmm. tey dañu war a fekk nit ñi ci seen ndóol boobu ñu xool mécanisme yu mën a tax ñu jëlee leen ci ndóol moomu dafa mel ni dañu leen di entretenir ci seen ndóol bi hmm. maanaam yow am nga famille na nga séntu chaque année dinañ hmm. def ci lii pour nga def ci la lii encouragé wu la daal ah non du du du c'est-à-dire tey teguñu luy war a mën a tax espoir sax di am parce que cent ñëpp xam nañ ne soo koy fayeku par mois sax jëruñu la dara waxam tumaat par at mu jë dikkee na deux cent cinquante francs par jour taalibe yuy yalwaani mhm. seen sëriñ yi dañ leen di laaj plus de cinq cent francs alors donc loolu soo ko jëlee nga ne loolu da koy def pour dimbali nit ñi en même temps moom wax na ko léegi yoro mu ne permettre nañ la nga dugal sa dañ lay permettre nga dugal sa doom école c'est très important waaw sa doom boobu su duggee école dem ba nekk université ñu ne ko pour nga dugg léegi université vingt cinq mille francs ngay joxe xam nga am na incohérence soit da ngay naan damay dimbalee nga dem jusqu'au bout mhm. wala nga ne du ma dimbale nga xool mécanisme yooyu mën a dimbale mais cohérence politique sociale amul du point de vue bon peut-être yeggale rek du point de vue économique mhm. tey croissance bi wax nañ ko ñu mhm. ngi nekk 3 virgule 5 pour cent en 2012 2013 bi ñu ngi prévoir 4 pour cent mais wóoru sañu nekk 4 pour cent parce que xam nga li tax parce que pro prévision yi ñu def pour année 2013 bi rek déjà wan leen nañ ñu prévision yooyu muy premier trimestre en termes de recette fiscale perdre nañ 33 milliards deuxième trimestre en termes de recette fiscale perdre nañ 77 milliards loolu lan lay signifier ça veut dire que soo prévoiroon ay dépenses fenn tey dépenses doo ko mën a def ndax ni nga xalaatoon di nga ko am si xaalis doo ko def d'accord donc ça veut que tey ñoom seen prévision yi si boppam yi problème looloo tax décret d'avance yi bëri moo tax da ngay xool lu ñu doon ŋàññi si euh, je sais pas da ngay yàkkam si. parce que je non waaw waaw parce que parce que lu ñu lu ñu doon ŋàññi si si si si régime bi passé décret d'avance ñu def gis nañu en def nañ lu ko ëpp. plus de 100 milliards. d'accord alors vision problème de vision boobu mooy suñu problème ak gouvernement bi nekk fi merci beaucoup problème vision bi wax nga ko euh, monsieur le ministre Youssou Touré dégg nga ni nga xam ni loolu la wax euh, ci li yoro yëkkati muy semi bi muy bourse sociale bi alors que loolu laa gis nii toujours moom ngeen di brandir nag vraiment bu ñu waxee lan ngeen fi def yooyu laay dégg ñu koy wax alors que critiques yi ci gars yi di teg yi ci nit ñi di teg dafa nekk ay critiques yu yu avéré yoo xam ni itam li ngeen ci mën a dindi du bari lan nga si mën a indi ci lu ñuy gën a leeral ci wàll boobu avérée ak critique facile du benn xam nga convoquer des chiffres convoquer ay taux de croissance loolu moo refléter la réalité du quotidien des Sénégalais mais mbir mi bu ñëwee ci série bi bi xale yi mais du ñëpp ci mënu gis nga difficulté yi ñuy am yooyu maane ne ne dafa amul aucun pays au monde ba ci États-Unis mu gën a rëy économie mu saafara ñëpp ñu ci territoire am bu ñëw day bay waaram lu mën def ko siy def sa gis nga àdduna ak suñu réew yi du yàgg-yàgg ba mel ni àjjana mais loo mën am na ñoo xam ne dañuy xëy di leen sarax mais am na ñu ko soxla ñu nekk feneen donc yooyu euh, ce monde parfait là ce monde de rêve ñun on a les pieds sur terre on ne spécule on s'attaque aux réalités quotidiennes aux difficultés quotidiennes auxquelles on est confronté ñun si difficulté yi lañ jëm euh, buñ nee par exemple accélérer la cadence man du ma dugg si genre théorie yooyu accélérer cadence xam nga ñun lu ñu xam ñun ñu ñàkk xam-xam mooy ñu fexe ba ñu ñu lekk maanaam ñu yombal ko ba nga xam ne danañ am luñ mën a duggee marché yóbbu seen kër luñ njëkk def pouvoiru président Macky Sall malgré situation de déficit bu ñu fi fekkee bu ñu fi fekk lu mu njëkk a def mooy wàññi euh, njëgu lu bari muy ceeb muy diw muy yeneen ak yeneen ak yeneen te muy lu jafe nag euh, yemut si loolu mu ne tey jii comme xaalis bi dañ ko war a tasaare dañ ko war a tasaare ba lu ëpp daal mën si jëriñoo mu ne facture téléphonique bu mu fi fekkoon sama xarit seen Mbacke Ndiaye ñoo dàqoon a téléphoné fii mu ne facture téléphone bu mu fi fekkoon mu doon ay presque trente milliards actuellement de euh, Thierno Bocoum xanaa loolu war nga ko reconnaître mu ngi si treize milliards donc ñu wàññi si lu ëpp vingt milliards war ngeen ko rafetlu facture téléphonique war ngeen ko rafetlu. ministre conseil yu fi nekkoon ministre conseil yu fi nekkoon buñ motu téeméer. ci 12 ans. waaw ci 12 ans non dama ne waxuma 12 ans. Ah. non non non ak départ bi non ministre amul ñuy yokk chaque année ñuy yokk. ok ministre conseil laa wax yu fi mhm. nekkoon. Mhm. buñ motu téeméer dana ma jaaxal. d'accord tey jii Thierno Bocoum ñu ngi naan ñu ngi jouer rôle opposant lu baax la mais ñoom seen bopp xam nañ ne. pratique yu fi amoon amatu fi. d'accord man am naa par exemple samay nawle jàngalekat. samay nawle jàngalekat nekk ci banlieue bi nekk fu nekk. dañoo jël ay portable jox leen. jox jox leen ay marché yooyu yëpp dañ na fi. bañ nañ ko ba ñu nekkoon présidence ñu si ëpp léegi ay portable lañ leen jox euh, ministre conseiller dem leen ngeen seet ñaata la nañ seet ñaata la. bu régime bu fi jógee xaw ma si Abdou Diouf de ëpp na téeméer. d'accord si euh, euh, si si si loolu si loolu <coughs> si loolu. Mhm. nu nguur gi di doxee boo demee tey si ministère yi yàqaamatu fa du ñuy manqué kay. mais réew. du kër gu ndóol gu nekk nga ne naa fa def dara mais benn. benn pouvoir mënu ko quand même Thierno Bocoum yaa ma gën a jàng yaa ma ëpp xam-xam xam nga ne loolu benn pouvoir mënu ko c'est àdduna hmm. comprendre nga donc mbir mi mooy jafe-jafe yi dañoo ñëw euh, gerte xool lu ngeen ci mën a waaw gerte rek ngeen def gerte waaw mais dafa ñu ñaari at effectivement sama gars def nañ fi fukki at ak ñaar hmm. gerte gi buñ ñëwee première anne ba première année bi buñ ñëwee bi 2012 yokk luñ si def li mos sa ren aussi yokk ngeen ren aussi dana dana yokk. donte béykat yi nee nañ doyul. waaw mais du doy bànneex du doy. yëpp da bànneex du doy. <laughs> merci monsieur <laughs> voilà loolu loolu ce que terminé naa ko léegi. <laughs> baal baal ko mu terminé. waaw euh, loo loo wax si xaw ma je crois que Serigne Mbacke moo ko waxoon. Mm-hmm. moom ma moo ma moo ma njëkk a wax. xam nga danga ne. Ndor euh, Dieg yooyu. buñ buñ ñëwee bi fii waxoon naa ko sànq. waaye kenn force wu leen seen président xam nga man Wade dama ko bëgg. nit ku baax la mais kenn force wu ko mu ne bu ngeen ma gagné réew sa fonctionnaire yi dootuñ fay ko effectivement mhm. président mag yi contrairement ak euh, xaw ma kan moo ko fi waxoon bëggut weer nit bëggu si wax président Wade si boppam moo newoon buñ ko voteelut danañ toog ay weer duñ fay effectivement parce que loolu xam na ne mhm. xaalis desutoon euh, desutoon si si réew mi euh, Benno Bokk Yaakaar je crois que réew mi moo ko wax ñu si nekkoon Malick Gakou de toute façon AFP allié Benno Bokk Yaakaar la am na loo waxoon lu am importance. Mhm. mu ne élection da di dem après 2017 si 2017 mën nañ présenté wu. Mhm. mais ñun lu ñu leen di ñaan. Mhm. mooy que seen xam-xam bu ñu am. parce que fu bëri moom fa ëpp xam-xam. donc mën na ma ko dolli. ñu def ko si réew mi <laughs> seen xam-xam bu mu am. nañ leen ko jox waaw nañ ñu ko jox nañ ñoo boole bu ñu demee 2017. donc am ngeen am ngeen problème xam-xam. maa ko amul borom xam-xam yow yaa da ngay yori tuuti rek nit ki yore leneen. waaw waaw d' merci waxee ba pare moom sax boo ko laajee li mu waxoon mënu ko waxaat. <laughs> ah bon non c' est vrai tellement la doo xam pouvoir <laughs> tout est mélangé ma sax ni tontu yooyu. je dis tout simplement que. Mhm. dafa ma wax yow tuuti dañ moo ko waxoon moo ko waxoon. Ablaye li wax dafa mu ko teg fu wóor. président Macky Sall moo nekk le candidat Macky moo ñëw wakaam yore saaku ceeb parfumé ñi kii su ma gañee dama koy wàññi teg ci ni jaaduwul carburant di wàcc dakaar ñu dugal ko ci oto yóbbu ko Mali muy gën a yomb Mali dama koy wàññi mhm. Abdoulaye Wade ni loolu annonce yëpp bu ñu ko defee bu ko defee Sénégal fay salaire waaw ah, d'accord loolu la waxoon kon que ceeb bi muy wax ni moom la wàññi wax naa ko tout à l'heure bi ñu commencé wax ceeb ba mu wàññi yuusu doo ko lekk du ma ko lekk kenn du ko lekk fii ñàkk pexe mooy tax nit lekk ko mhm. riz ba ñu doon yaakaar ni moom lay wàññi wàññiwu ko donc bu ñu sori te léegi nii monsieur Ndiaye ma la rek <laughs> sama am problème ak la régie waaw donc yow euh, dama lay ñaan rek waaw amul amul amul amul amul benn problème euh, dama koy dama koy gàttal rek <coughs> waaw donc pour wax ni bu ñu wax question de santé mhm. mais nit ki bala muy faju day am fu mu fajoo donc dama jàpp ni bu ñu bëggee saafara mbiru wérgu yaram la fi Abdoulaye def ci hôpitaux dañ ko yokk centre de santé ñu yokk ko poste de santé ñu yokk ko recruter ay médecin yu ëpp recruter infirmier de infirmier d'état recruter ay sage femme gën leen tasaare ci réew mi. d'accord jàppale étudiant parce que li Thierno Bocoum wax léegi c'est important même bu fekkee ne man personnellement je le di à haute voix. Mm-hmm. bourse euh, nu ñu ko tuddee. famille xaw ma bourse xaw ma lan social xaw ma familial mhm. xam nga nit ki nga xam ne da ngay mën nga fayee ko un million de francs xeeb loolu mais baykat bi nga xam ni bu ñu waxalee rek te yàlla tax day bay ba weer wi ba at mi jeex du am cent mille francs buñ ko ko xeebal donc personnellement loolu dama ko rafetlu je le dis à haute voix par contre li may séntu mooy naka lañ koy doxalee effectivement c'est comme bu ñuy wax seen agence de de de de. Euh, sécurité sécurité proximité xaw ma sécurité waaw. la may séntu mooy naka lañ koy doxale parce que loolu aussi damay wax toujours ni dama ci awoon gis-gis. ba général ñaar def ci benn exposé. malheureusement bon malheureusement temps bi. voilà ñu pour ñu effectivement ko. voilà mais en tout cas. Uh-huh. Euh, bon c' est c' wax. bari merci gis naa gis naa que noté nga mais maa ngi jégalu Yoro maa ngi jégalu honorable député. c' est dommage ma affaire dama dégg euh, may ma. une fraction de seconde. allez-y premier ministre di wax ni dañu recruter 600 débatteurs. waaw ma di ko wax ne ñun am nañ agence de communication. ak des éléments du PDS yu mën a yooyu. ñu ñu jàngal leen. peut-être boobu effectivement waruñu ko xeebal. waaw béykat boobu war nañ ko permettre. doomam buy jë nekk école bu mën a jàng boo réussir war nañ ko permettre aussi mu créer cadre buy tas waaw waaw ñun daal waaw ñun daal waaw ñun daal lu ñuy ñaan si réew mi waaw mooy ku fi nekk ne danga am xam-xam danga am xalaat nga indi ko daal ñu ñëpp ñu bokk xam-xam bi ak xalaat bi ñu ànd accompagner population bi mooy xam nga dama wax bourse familiale ak yooyu nga ne loolu rek la wax mais ndax am na yeneen mesure d'accord kooku fi naroon wax dina gudd prochaine fois inchallah mais mën nañ ci wax lu mu bon bon au moins que euh, les DAC le domaine agricole <laughs> communal yi ñu dañ koy def effectivement dina créer quand même au niveau de l'agriculture plus de trente mille emplois d'accord voilà mm. donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax mu nekkoon seen émission spéciale débat ak Faram Facce nekk Yoroba bu jëf jël àndoon ci ak honorable député bokk ci parti euh, bu baax ak Serigne Mbacké Ndiaye mbokk ci comité directeur bu parti démocratique Sénégal la ñu àndaloon euh, mbokk yi ñu leen di jox daje incha allah euh, ci beneen numéro bu ci yàlla àndee spécial débat faram-fàcce jërë ngeen jëf. d' accord nañ. bu ah. ñu ci jógee. bu auditeurs samay